yëg naa ni Ismaayla mucc na yëg naa ni yonent yàlla Moussa mucc na ci géej man sëñ Touba mucc yooyu yëpp yëg naa ko moo tax ma gëmoon man Serigne Bamba ne mbir mi danaa ci mucc moo tax Xaadimu Rasuul ne kitaabun bihi masaktu mustaxniyan bihi waaw nee na téere la boo xam ne dama koo téye rek doyloo ko sëkk mu doy ma sëkk waaw mustaxniyan bihi mu ne xariban fa ansaanil musibaati wal kaaba Sëriñ Bamba nee bi ma tumurankee wéet ci géej gi ci àll bi wéet fa ñu ma yóbbu nee na alquran ñëw wéttali ma dalla sama xel ba ma xam ne dara du am lu dul jàmm kon alquran ak Sëriñ Bamba kooku moom kenn du laam-laamle seen diggante ñoom ñaar kon alquran di téere bu am solo xaadimu rasul waxaat ni eh, kitaabun azizun laa yuraaxihi aabidun wa yatluuhu illaa waxtawal fata wal qurba Serigne Touba nee na soo bëggee ubbeeku bu mel ni gii fi soo bëggee ubbeeku ci bunti xéewal ubbeeku ci am yàlla ubbeeku ci teraanga ubbeeku ci sutura Serigne Bamba nee na lenn la téere la boo xam ne soo dee jaamu yàlla di sàmmunti ndigal yi defal nga def bàyyil nga bàyyi Serigne Touba nee na dana la may ñaar dana la ubbil adduna dana la jegel yàlla ci loolu la nit diwul àdduna bu ubbeeku ak jege sa borom su àdduna ubbikoo kenn du la fooye ndax li nga bëgg yépp a ngeeg yow ku yàlla dimbale ba teraanga ne ci moom toroxal ko dootu yomb ah xanaa nga fuqale boobu boo fuqalee nag kenn mën laa dimbale moom ku du suur moom ma ne kenn mënu koo toggal waaye Serigne Touba nee na képp koo xam ne jël nga alquran téere la boo xam ne ku ko sàmmonteeg moom topp ndigal yi bàyyi tere yi te di ko jàng xaadimu rasul nee na ñaar da nga ko am illaa waxtawal fatha yàlla dina la ubbil dana la jegeñal boppam yàlla na ku ko jege loo ko mu defal la ko mooy waral ñaan bu nangu waaw adduna bu ubbi ubbi ko mooy tax nga mën a tëju Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma dafa am benn géwél bu ko doon wayaan fekk Serigne Cheikh Mbacke toog mu ne ko ah Serigne bi de li ma doon ñaan nangu na Serigne Cheikh Mbacke ne ko loo doon ñaan mu ne ko dama doon ñaan yàlla fekk la fi ñaan yàlla fekk nga am loo ma jox ñaan yàlla fekk nga wér ci ñett yi nangu dama doon ñaan yàlla fekk la fi ñaan yàlla fekk nga am loo ma jox ñaan yàlla fekk nga wér te ñetti xam naa ne am na mu ne ko noo ko xamee mu ne ko Serigne Cheikh kilifa bu wérul du génn Serigne Cheikh mu ne ko mu ne ko kilifa bu bu amul du génn kon yi am nga la jox taalibe yi moo tax nga génn am nga wér gi yaram moo tax nga génn Mbàkke jox ma ma dem